ni mu ko defee woon tabaski 2019 tabaski 2020 honorable Makhtar Diop yëkkati ay ndimbal yu takku dal di koy jébbal li mu responsable politique APR ci diwaan bu Touba ak bu Mbacké ñenn su ñoom di wax ne kii daal dafa delloo buum ca boy boy ba. nekkul lu ma bett nag ndax eh, def na ko daaw def ko daaw jéeg ren su ko defee bettuma te maa ngi koy doon xaar te defaluma ko man kese defal na ko leader leader yi nekk ci eh, monde rural bi yëpp. man toujours li may wax monde rural bi gisuñ kenn ku dul moom gis nga suñu su ne su moom su bàyyi woon politique ñun weewoo ñu dem toog ndax gisuñu keneen moom lañ gisoon demb moom lañ gis tey. Matar ba amee ndombal tànk nee nañ kii la yóbbu su am am yow du la fi bàyyi Matar lu mu am rek jox nañu ko ñun ñun ñun daal yaa Matar ma yaakaar lu am rek ñun waa Touba jigéen Touba ñoo si ñoo si gën. Matar daal Touba mën naa ne moom moom mooy mooy borom daal boo demee si sancaani sax Matar lay rek la ñuy wax sancaani Matar la ñuy wax. sa sanjaane la njëkkee ne doo ko ñëw si ñun kon sant nañ ko gërëm nañ ko. ñu amoon ñeneen ñaar ñu mel ni moom ci dëkk bi wax dëgg yàlla dëkk bi du ñu jëggaani dara ndax Matar ndaw la te am na ambition te wax dëgg yàlla bépp ndaw boo nga xam ni yaa ngi ci département bi Matar lekkul bàyyi la. ñëpp la jàppale yëmu ci ay femmes kese Touba gépp la jigéen ñi Touba ñëpp Matar la leen di jàppale. Matar ci sañcaan yi la njëkkee def fa door a ñëw ci ay jigéenam lu muy def ci sañcaan yi ak jàmbur yi ci la koy njëkkee door a ñëw ci biiram ñoo ngi ñaan président di la yin yóbbante ca président ne leen na jox Matar na ko fi tefal ndombal tànk Matar bu amee ndam Touba wala mu am ndombal tànk rek waa Touba dinañ jëm ca kanam. kon ña ca ko war nañoo xam kan mooy Matar Diop Matar Diop moom mooy ki nga xam ne moom mooy mën nañ ne mooy coordonnateur fii moom yemul biir Touba kese yemul Mbacke kese mais dafa boole Touba Mbacke ak monde rural bi est-ce comprendre kon dafa yemale Touba monde rural bi ak kon moom dañ ne mën nañ ne moom moom département bi ñu ñi ay nitam su demee su demee rek dinañ dem mais su su demul duñ dem si lu tuut li muy am nag mu ngi ñu ciy kon nag su ko ñee fàttalikoo rek moom it dinañu fàttaliku. bi feebar bi ñëwee dafa ñëw seet si ñu ba xam nu ñu toogee indi ñu ay eau zevel, javel indi ñu ay sabu lu ñu soxla mu indil ñu ko ñu dem si koor gi xam nga koor gi metti na mënoon na indi ñëwoon naa du ma ñëwaat koor gi mu ñëwaatal boppam indi jox ñu ceeb ay ambalo suukar lu ne mu jox ñu ko ñu yaakaar ci lay yem tabaski barki démb kenn ku ne mu jox la ambalo bo xam si da boo ko teppee da ngay waru kon Matar mom, dañ koy sant rek dañ koy ñaan dañ koy ñaanal sax lott nañ ci wax ko ndax Matar lu mu yëkkati rek yaakaar ne femme yi ñoo ko ñoo ko moom ndax ni muy def nii si Touba bu ko ñëpp doon def kon Touba kon comme ni comme ni ñuy wax comparé. ndax dëkk bi moom euh, depuis Covid 19 bi ci la commencé woon savon yi ñëw na su préfecture andi fa APM femmes yi jàpp na leen ci ordre javer yeeg madaar bi Covid bi ñëwaatee mu dellusiwaat andi ay ceebam ay diwam. ba nii may wax ak yow nii dëkk bépp Matar Diop ceeb la ko def francement ndax ba muy indi ceeb booba ceebu président bi sax duggagul ci biir en tout cas daal président ñu ngi lay euh, lancé waat appel ci Matar Diop nga gën koo teg loxo jàppale ko ndax du lekk bàyyi kenn te doomu Touba lépp loo nga xam ne jox nga ko dana ko indiwaat ci askan wi ñu bokk koog man ndaxte Matar bu fekkoon ne day xaar ba politique jóg mu dugal ñu ci ay oto di ñu ràjj ràjjee di ñu joxe 1000 francs waaye moom su politique dañuy wax day leen liggéey wutal ñuy ay sabon ñuy dañu liggéey ay savon ñun moom ay liggéey kat nañ façon liggéey bu nekk mataar buñ ci duggee rek mu fekk suñ ca fan yëpp ñoo ngi liggéey suñuy savon suñu yëpp mataar dañu fi fekk si kon président ñoo ngi koy ñaan nañu jàppale honorable Matar Diop bu amee ndombal tànk rek Touba du ñàkk dara jëf ji fekk si moom Matar Diop ay jëf ji nga xam ne jotoon na ko jukki jébbal ko askan wi ñeel xeex bi nga xam ne nguurug Sénégal sumboon na ko ngir jële fi coronavirus